mbokk yi sant leen gërëm leen ci seen àndaax ñun si rajo Rewmi FM te nag euh, dimanche ñuy euh, dalal ki nga xam ni moom moo di euh, monsieur Babacar jong nekk responsable politique APR fële ca Parcelles Assainies sëñ bi jong ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. merci beaucoup di leen fay di am contentement ak mbégte di ñëw si seen émission. ak ci rajo bi réew mi FM. ci groupe mi FM. jërëjëf alors dañ koy dooree rek ak ci li nga xam ne moo jëm ci coronavirus bi nga xam ni moom moo sonal àdduna wërngal këpp ci jàng jàngoro bi nga xam ne nag mi ngay def ay euh, ñombe saa su ne waaye tey nag li nga xam ne moom moo jëm ci chiffre bés bi dafa jéggi dayoo 172 cas lañ ci nemmeeku 23 yoo xam ne nag dañu wér war nañ génn bu nu sukkandikoo ci ki xam ne moom moo di Mamadou Ndiaye ñetti décès lañ ci am 43 cas yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réanimation. dañuy wax ni rek ginnaaw ba ñu jugee ci li nga xam ne moo jëm ci tabaski bi chiffres yi mi ngay gën di yokk lan moo ci sa commentaire ci wàllu yu ni mel. waaw première commentaire bi boo analyser chiffres yi nga interpeller leen da ngay xam ni euh, comme toute épidémie. Mhm. ni muy lawee c'est au bout de une semaine quatorze jours ngay gis conséquences réelles yi. Mhm. donc en amont de la tabaski relâchement bi nga xamante ne moo am ci réew mi mhm. moo jur lii. parce que aussi amul cause sans effet donc loolu lañu mën a expliquer li nga xamante ni moom mooy chiffres yi yokk te boo ko dégloo bu baax a baax boo dégloo les experts ñi nga xamante ni mooy euh, tel que le professeur Seydi mhm. da ngay xam ni li c'était prévisible te euh, ay li yéwén mhm. prévoir nañu sax lu ëpp li mhm. parce que épidémie mooy fonctionner noonu dans l'immédiat tey bu nit bu ko contacter c' est dans les quatorze quinze jours. la mhm. ñuy mën a am réellement. Mhm. résultat wala xam ni kii jël na corona bi wala jëlu ko. Mhm. donc loolu moo tax tey bu chiffre bi yeggoo fi dañuy comprendre ni effectivement loolu la. te des na te des na effectivement parce que pic day day day monter. croissance lay def te boo ko xoolee. Euh, le ministre euh, Abdoulaye Diouf Sarr may koy nuyu. di ko félicité au passage. comme ni ko président félicité. mu taxaw ci taxaw bu mucc ayib. waxoon na li gënoon mooy tabaski ku nekk na toog ci këram. na mhm. rester sur place. Mhm. mais gis nga euh, nit ñi déplacé wu. donc lii lu prévisible. mais jamono jooju ñu ko doon wax njiitu réew mi dafa ne woon nañu dund ak virus bi. waaw xam nga tey ji il faut comprendre aussi que ni dans tous les pays du monde noonu la ñu mën a def. il faut vivre avec. Mhm. c'est devenu une réalité boo xam ne. il ne va pas falloir nit ñi ñu confiner wu éternellement mhm. te il y a facteur aussi muy l'économie mhm. te l'économie pour que mu mun a marché pour que mu mhm. mun a dox il faut que les gens soient bien portants te lii nit ñi ñoo koy transmettre donc moo tax le président demande nag xamal nit ñi nag ni nag finalement il va falloir vivre avec mais vivre avec ça ne veut pas dire relâcher wu tey loolu lañ nemee ku mel na ni mais relâchement bi bu ko amee day jur ay conséquences vivre avec ça dire que nit ñi nañu continuer à travers les mesures barrières à travers la distanciation physique surtout mesures barrières yi am nañ ko donc mooy di gàllankoor di di di fal di lamboo ak di raxasu di làmboo aussi di sol masque di utiliser aussi le gel hydroalcoolique mhm. te et puis fexe ñu garder la distance au moins de un mètre entre les individus mm donc yooyu yëpp boo ko seetee mhm. buñ ko appliquer dans les normes mhm. noonu lay demee tey jii la France mi ngi def cas moom itamit mi ngi jàkkaarloog le même problème mhm. avec la pandémie tey jii France mi ngi am un remon une remontée aussi ñu ngi am chiffre yoo xam ne amuñu ko woon parce que aussi ils ont constaté que l'individu nit ci boppam mooy gaaw a mooy yéex a intégré yenn zone yenn kii yenn mesures yi. Mhm. d'autres ba léegi dañuy am problème avec les masques. Mhm. mais fii moom dañuy gis nit ñoo xam ne dañuy sax bañ takk masque mel na ni jàngoro bi existé wul sax ñoom la la ñuy jàpp ko relâchement bi dafa feeñ trop ci askan wi. Hmm. waaw boo xoolee sociologie nit moo demee noonu mais c'est pas une raison parce que aussi dama jàpp ni bu ñenn ñi seen xam-xam màccee ci dara. ñu joxe ay tegtal te ñu gis feebar bi nu bonee ak ni muy def mhm. nit ñi ko war a respecter mais malheureusement dañuy jàkkaarloog des gens des des des refus ñoo mhm. xam ne dañuy refuser volontairement mhm. sol masque bi te loolu moo jur lii mu jur ni tey c'est vrai il y de l'insouciance aussi parfois boo gisee parce que ba léegi sax xëy na léegi mi ngi tànne sax parce que dinga gis nit di wax ak moom muy naan est-ce que feebar bi am na xam nga loolu problème la. Mhm. léegi kay kenn waxtul wax am na mais naka la fi fexe ba jóge fi. Mhm. parce que bu njëkk bi ñuy yaakaar ni mhm. épidémie la rek. day jàll parce que épidémie tamit. noonu lañ ko mën a jàppee. mais boo xoolee ba Chine tey. dañuy jékki-jékki gisaat encore ay cas. te jëloon nañu ay mesures draconiennes. parce que Chine confinement total la defoon. or ñun xam nga gis nga defuñu confinement total. bien sûr. couvre-feu lañ tegoon. waaw askan wi yuuxu. njiitu réew mi dellu ci ginnaaw nga gis mhm. ñi génn wàcc si tali bi di kaas. Mhm. dinañ leen bàyyi ñu génn ñu dem. Mhm. ñu défier force de l'ordre yooyu yëpp aussi je pense que ni benn ñàkk maturité peuple bi la. mais aussi ñàkk déglu la. te yu mel ni aussi. bu ñu doyloo nit. ba jox ko confiance jox ko réew mi jox ko sunu destinée sunu. avenir. donc dañ ko war a mën a déglu. muy wéy kon ci bi. Euh, njiitu réew mi amal conseil présidentiel ci jàngoro wi ni mel fa la yëkkati ay kàddu sax ne li nga xam ni moom moo jëm ci coronavirus bi li nga xam ni moom moo jëm dàqul sax confiné yenn localités yi nga xam ne nag ñoom ñoo gën a touché ci jàngoro bi ni mel ndax yow naka nga jàngatee décision boobu noonu bu ko bu ko jëlee wala ci da jàpp ni ci loolu lañ jëm. waaw xam nga le président de la république aussi dafay déglu te aussi di travailler avec. des experts pluridisciplinaires. Mhm. dañ koy jox ay information te dafa doon loo xam ne mu ngi koy suivre de près. Mhm. donc bu ñu ko joxee yenn information yi moom mooy jël la décision politique. Mhm. ñoom dañ koy kii proposer. moom nag mooy disposer. mooy disposer parce que moo yor règlement yeeg loi yeeg tout ça mooy yor dogal yi. donc buy dogalee ni bu ñu moytuwulee dina am. béréb yoo xam ne dinañ leen confiner mhm. loolu ay li du ñu si mën lu dul rafetlu ko parce que aussi tamit moom moo yore destiné réew mi mhm. te information yi muy am mhm. du citoyen yëpp ñoo koy am donc loolu tamit nañ ko sóoraale mel na ni Dakar daal mooy lépp ah. sóoraale parce que aussi Dakar il faut comprendre que ni agglomération bi ak population densité population bi boo ko xoolee da ngay comprendre ni facilement fii zone yi dafay doon zone yoo xamante ni dafay propagé wu rapidement. Mhm. boo xoolee des zone tel que Tamba nga xam ne amoo ñu densité au mhm. kilomètre carré bu mhm. vaste. parce que boo xoolee Tambacounda dama ko jël comme exemple. parce que Sénégal boo ko xoolee Tamba bokk na si zone yi nga xam ne c'est pas une grande densité de population. tel que au Fouta aussi am na zone yoo xam ne te ni amuñu benn densité de population bi te kii euh, comment dirais densité population bi nit ñi nu ñuy cloisonné wala nit ñi tàncalante. dafay gën a favoriser propagation wu virus bi mhm. moo tax ñu jël dogal yu mel ni teg marché yi mhm. dogal yi mel di éviter rassemblement yi mhm. te zone yooyu farewu barewul lu mu fay am zone yi ñu gënoon a ragal mooy luuma yi nga xam ne day am hebdomadaire luuma hebdomadaire yi di am ci yenn béréb bi donc ñu ko doon ñu ñu doon éviter rassemblement yooyu moo tax président tey ji buy jël yenn dogal yi dañuy dakaar moom mooy mooy nekk. Mhm. tête de pont bi. bu jógee dakaar nag ñu xalaat côté ay Touba. Mhm. ak ay Thiès. Ziguinchor mhm. ay Ziguinchor ak yooyu. donc loolu tamit noonu rek la mën a demee. ay li yeneen zone la yoo xamante ni dañu war a gën a gën a farlu. gën a farlu gën a taxaw nag xeex réellement. virus bi parce que tey jii. ba maa ngi doon waxtaan ak benn personne très age bu nga xamante ni mi ngi may wax ci njortam ak ñaaw ak ak ragal gi ñuy ragal. parce lépp tamit. jeunesse bi moo war a am conscience que ñoom effectivement mm-hmm. Mm-hmm. ñoom ñoo mën a nekk les vecteurs mm-hmm. les porteurs de de du virus te ñoo war a mën a épargner la population te jii gis nañu ne ñun par exemple bu ma xoolee man sama exemple suñu kër suñu waajur yi ñun nangootuñu ñu génn nangootuñu sax kenn approché leen. Mhm. parce que noonu lañ leen mën a. ngeen dëkk ay mag. Mhm. nekk ay mag. Mhm. dañ leen di protéger. parce que loolu la ñu mën a def. parce que bi nga xamante ni boo ko jëlee entre cinquante cinq ba soixante soixante dix ans fii au Sénégal. ñoo gën a bokk si ñi loru ci pandémie bi. exceptionnellement lañ fi gis une jeune fille de vingt quatre ans fële à Matam. bu décédé. donc c'est dire que rek. le virus est là. Mhm. nañu justement kon ndaw ñi ban taxawaay lañ ci war a gën a mën a am tey ngir euh, éviter euh, jàngoro bi gën a propagé wu di gën di law. ndaw ñi taxawaay bi njëkk a war a xam moo di que ni ñoom ñooy kàttanu réew mi. ñoom ñooy yor réew mi parce que nous avons une population jeune. Mhm. extrêmement jeune. presque plus de quarante cinq pour cent yëpp c'est la jeunesse euh, à plus de soixante à. quarante cinq pour cent entre quarante cinq et soixante pour cent. tranche bi nga xamante ni mooy la vingtaine jëm trente ans ak yooyu. donc tey euh, malheureusement jeunes yi euh, dañoo mesurer wul la pleine ampleur. jàpp nañu ne xëy na ils seront plus résistants. mais le fait que ñu koy transmettre c'est ça qui constitue le problème. te tey jii boo déggee ñu ne le Sénégal am na risque quatre millions d'individus ñu porter le virus là. da ngay tiit sur une population de seize millions d' habitants lu si quatre millions porté kii bi te loolu dafay graaw waxuñu nag le cas des asymptomatiques ñi nga xam ne ñoo gën a graaw ñu xam ne tey ji ñi ngi ak jàngoro bi ñu ngi dox ak jàngoro bi te xamuñu ko xamuñu ko mais ñi ngi koy transmettre mhm. donc cas yooyu tamit buñ ci dañ ci bàyyi xel te moo mhm. gën a graaw fu mu nekk fii nii mhm. parce que tout le monde exposé à la vérité tout le monde exposé

Euh, ki nga xam ni moom moo di Aly Ngouille ci aljuma ji ñëw na ci li nga xam ni moom moo jëm ci mesures yu yees yi nga xam ni euh, gouvernement bi itam jëlaat na ko fësalaat na ko itam tey tey ndax da nga jàpp ni mesures yooyu tey mën na fànq li nga xam ni moo jëm jàngoroy coronavirus bi mu ngir mu euh, li mu doon law mu wàññeeku. waaw effectivement parce que tamit il faut comprendre que ni c'est des mesures appropriées. Mmh. parce que fa lañ toll. Mm-hmm. il faut nit ñi éviter éviter rassemblement yi. Mhm. te gis nañu ne béréb yëpp yi nga xamante ni dafa ànd ak rassemblement. Mhm. ñu ngi koy ñu ngi leen di tere. Mhm. pour ñu ko utiliser ti te aussi ñi ngi ñi ngi bañ ñu nit ñi di fa rassembler wu. donc loolu c'est une bonne chose. Okay. te loolu nit ñi dañ ko war a respecter à la lettre. parce que aussi président aussi ni mu ko waxee loolu tamit lu jar a sóoraale la. il faut vivre avec. mais ça ne veut pas dire que les gens dañu war a relâché wu. dañu war a relâché wu te li ñu ko indil yëpp relâché wu la nit ñi ñoo koy transmettre. Mhm. bu fekkente ne nit ñi demuñu dikkuñu ñëpp ñu ngi yem benn place respecter mesure barrière yi. Mhm. jàpp naa ne ay liy yoon tey du ñu tolluwaat fi. Mhm. donc c' est dire que ni recul la léegi. marché yeeg yeneen bërëb yeeg plage yi kon dafa mel ni dañu war a gën a mën a yokk tey sécurité bi ngir euh, ndaw yi gën a bañ di dem foofu ndax ci période tàngaay lañ nekk génn dem féexlu naam mais nañu war a fàttali itam ni jàngoro bi itam mi ngi fii. Mhm. waaw euh, période tàngaay la ñu nekk c'est vrai. mesure yi ñu jël te di saluer noo force de défense et de ah. sécurité. Mmh. parce que tey jii boo xëyee matin ñu ñuy dëkk parcelle. bi ñuy doxantoo ba ci plage bi. Mhm. gis nañ de visu quand mhm. ni amatul rassemblement yooyu. waaw ah, depuis démb ba léegi quand même ba mhm. léegi. kenn gisatu ko. c'est vrai ça fait mal c'est dur mais il faut se contraindre il faut que nit ñi contraindre nangu contrainte yi. parce que loolu mooy mucculoo nit ñi loolu mooy tax mbas mi dem yoonam. te loolu fi ñu si toll aussi dañuy saluer mesure yooyu. parce que il faut loolu mu am. il faut nit ñi nangu def sacrifice u rester sur place mm-hmm. sauf nécessité mm-hmm. képp ki nga xamante ni amuloo soxla wala waruloo génn mm-hmm. war nga mën a toog benn place mais gars yi dañ jàpp ni ndogal yi Aly Ngouille Ndiaye ñëw wax dafa mel ni dafa ñëw tàngalaat ceeb rek mais lii moo fi ñëwoon am donc est-ce que euh, jaroon na ko fii est-ce que jarul woon ñu dem ci yeneen mesures yi itam waaw di ngay wax tàngalaat ceeb c'est vrai mesure amul mesure extraordinaire en Europe comme au Sénégal c'est toujours. la même mesure port obligatoire masque bi. de masque bi mhm. port obligatoire de masque bi te je pense que mhm. en France dès lundi ce sera obligatoire le mhm. port obligatoire du masque. donc loolu tamit au Sénégal tamit ça s'impose parce que bu euh, amee euh, croissance ci cas yi rek. il faut prendre des mesures radicales. radicales pas trop radicales mais je veux dire que dañu war a encore langoog pooru masque bi. parce que pooru masque bi dina tax yow. tu peux pas le transmettre ou bien boo ko amee tu ne le transmets pas. Mhm. loolu tamit il faut comprendre ça mais li wóor te wóor mooy il faut que mu ànd ak di raxasu. Mhm. avoir les mains propres. Mhm. c'est éviter éviter éviter les rassemblements. parce que entre individus qu'on le transmet. mais eh, gis nañu itam ni li nga xam ni moom moo jëm ci diwaan yéen ay acteurs ngeen. Euh, ci seen diwaan est-ce que tey yéen a ngi génn di wax ak seen askan wi nga xam ni surtout ca diwaanu Parcelles Assainies dinañ ci ñëwaat yéen ay porteurs de voix ngeen est-ce que yéen a ngi def liggéey ba war ci sensibilisation coronavirus ba. bon personnellement bon ci sensibilisation man ñun euh, avec dans le cadre de notre mouvement muy euh, kii comment dirais-je cap et émergence. Mhm. au début sunu membres yi. Mhm. Euh, surtout la frange des femmes. jox nañ leen assez de détergent mm-hmm. de savon liquide ak euh, de l'eau de javel mm-hmm. ñu conseiller leen de rester chez et puis aussi mm-hmm. di faral di raxasu ak di ci di di di di di insister sur les mesures barrières waxtaan ci ak ñoom loolu def nañ ko d'autre part aussi gis nañu aussi certains acteurs aussi politiques comme aussi de développement mhm. ñu dugg dans la même lancée mhm. ñenn ñi mayee nañu ay masques mhm. mayee nañu aussi des détergents ak des savons liquides loolu je pense que ni aussi am na au Parcelles Assainies et c'est pas encore suffisant parce que aussi il faut comprendre que ni Parcelles Assainies c'est une grande agglomération aussi euh, avec une forte densité de population il faut pas l'oublier parce que aussi Parcelles la plupart des maisons c'est 150 mètres carrés. 150 mm-hmm. mètres carrés et une population dense aussi. Mm-hmm. xawma exactement au kilomètre carré densité habitation bi ñaata la. Mm-hmm. mais on présume que quand même c'est des maisons où en général les gens vivent en groupe. je prends le constat d'abord chez moi. et partout aussi tailleur ci biir parcelle noonu la demee donc pour dire que. pour que mu am propagation au niveau des parcelles dafay gaaw. te c'est ce qu'on a remarqué. dinañ ci ñëw sax. Mhm. exactement. Mmh. alors ñu xool ni euh, point du jour bi moom saa bu ñëwee rek turu Parcelles Assainies moom dina ci nekk faay bi fan la. bon faay bi fi mu nekk euh, il faut d'abord comprendre que ni c'est la grande agglomération c'est-à-dire que les gens c'est une population dense. Mmh. qui est aux Parcelles Assainies et une population jeune. Mhm. loolu am na d'abord léegi nag. Euh, le frottement les brassages entre les individus loolu tamit. daf ko gën a daf ko gën a daf ko gën a accentuer lu fa am la. Mhm. te malheureusement aussi parfois nga constater que ni dinga nga romb un groupe d' individus de jeunes. Mhm. ñu nekk dehors sans masque aussi en groupe di waxtaan. Mhm. te dans des grandes places. ñu toog di discuter sur de les passants boo toogee rek. di observer les gens qui passent. Mhm. Euh, relativement da ngay gis ni c'est les personnes âgées mûres. Mhm. ñu am quarante quarante cinq ans jëm ci kaw. Mhm. ñooy faral di langoo masque le matin. vous savez parcelle aussi c'est presque dortoir la. le matin da ngay gis ni les gens ñu ñuy génn di liggéeyi mais ñiy gën di liggéeyi boo xoolee di def le constat ñun dañuy xool di observer. mais da ngay gis ni relativement les jeunes n'ont pas mis de ne mettent pas de masque. Mhm. quelques rares jeune nga ciy gis. constat bi dafa ne weñ foofu daal. non boo ko observé da nga koy gis. <laughs> léegi léegi euh, communes yi gis gis nañ ni ba fi euh, jàngoro bi ñëwee ku ci nekk ni nga doon génnee say moyens ñi seen budget yi génne ko ne lim bi lañ def ci euh, ci coronavirus ngir xeexee ko. ca diwaanu Parcelles Assainies yow naka nga gisee gestion bi nga xam ni maire bi tey taxaw nañ ko ngir xeexal ko coronavirus ndax da nga jàpp ni ñoom dañu xaw a lajj si côté boobu. waaw lajj bu mag a mag am na si parce que tamit il faut comprendre une chose euh, moi je ne suis pas avec le maire Barthélémy Diaz. Mmh. il n'est pas mon maire mais aussi j'ai beaucoup apprécié acte yi mu posé comme tous les autres maires yi nga xam ne posé nañu ay actes. Mhm. pour montrer leur engagement ak leur détermination ci coronavirus bi. Mhm. Euh, je prends l'exemple de moyens yi nga xam ne dañ ko jël à travers la mairie parce que c'est pas leur argent c'est pas l'argent des maires. Mhm. l'argent de la commune les moyens de la commune dañ leen war a utiliser ci circonstances yu mel noonu. Mhm. il y a une circonstance exceptionnelle. par parcelle bu nekkul ñaar wala deuxième commune bu ëpp budget ci euh, Ndakaaru kon jege na ko. je pense que bu weesoo plateau. nous devons être la deuxième commune. Mhm. bi am assez de fonds assez de ressources. parce que euh, le budget de la commune tey jii mi ngi plastronné autour de deux milliards quatre cent et quelques millions mhm. tey jii bu fekkente ni pour un cent millions ou cent cinquante millions le maire n'a pas voulu dégager cette enveloppe là moi je trouve que quand même c'est déplorable te il a déçu moom la génne euh, je ne sais pas ñaata la génne parce que tout simplement mhm. il a attendu que l'État génnee ses moyens. Mm-hmm. mooy li nga xam ne le président de la république à travers le ministre Mansour Faye. Mm-hmm. distribuer que les populations ci loolu la xaar ñu distribuer loolu mu génn di distribuer ànd taxaw ci bu ma dégloo ses communications j'avais entendu que ni dafa ni day xaar ba loolu pare. Mm-hmm. mu seet ñi amul mu jox ko ay li yéwén du alalam. moomu ko alalu commune bi la. ca njëlbeen la waroon jël. def ni moromam yi def. mais j'ai malheureusement on a constaté que à travers Defante à travers des citoyens des gens yoo xam ne ils ont dit haut et fort que ni ils attendent que le maire mu def ni ñoom ni ñële mu wane ni moom la mu wane ni dafay def lu ko neex loolu dama jàpp ni quand même ça ne le grandit pas daf ko tuutil sax parce que loo moomul la mhm. alalu askan bi la légalement nga ko war a génne mhm. jàppale nit ñi ci mbas mi kon parce que tey ji mhm. la population tey jii tey c'est le il devait être le premier protecteur de la population tey jii. Mhm. donc ce n'est pas à travers des gesticulations de hurler à travers les radios par-ci par-là on l'a entendu. Mhm. muy yuuxu par-ci par-là dans l'affolement total. Mhm. j'ai compris. parce que xam na la pleine mesure de ce qui est arrivé. il est en contact permanent avec les agents de la santé ak aussi le comité de ciblage bi ñu teg. il a les moyens. bi. non je n'en fais pas partie. donc bu amee toutes ces informations là ay lieu il doit gérer de façon inclusive mhm. inclusive parce que guerre bu amee mbar problème bu amee comme le président l'a fait mmh. il a accepté le président avec humilité dafa toog ak toute l'opposition mhm. ñi ko gënoon a sax détracteur am yi gën a mag mhm. mu toog ak ñu ñu waxtaan ci ñëpp taxaw xam ne lii c'est un combat national mhm. parce que l'adversaire c'est l'ennemi c'est l'ennemi de tout le monde mhm. épargné wul kenn bien sûr donc dama jàpp ni le maire bu certain di alerte wala di wax ci lu mel noonu mhm. war na leen prêter une oreille attentive parce que damay rappeler waat que ni c'est pas son argent deux milliards quatre cent et quelques c'est pour la commune moom moo koy administrer nit ñi lii la ñu bëgg le président de la république day la volonté populaire parce que les gens parfois dañuy bëgg dara mais c'est le serviteur c'est le premier serviteur de la population mmh. donc en tant que maire mmh. il devrait avoir une position inclusive dafa lajj daal yow sa gis-gis dafa lajj ci ni mu gérer ma ne sax mm-hmm. mais du question lajj sax mais weesu na lajj parce que il devait être beaucoup plus présent et beaucoup plus combatif sur ça mm-hmm. parce que il la chance aussi d'avoir une grande commune mhm. une forte population mhm. donc moom moo waroon nekk kii njëkk xar tànku tubayam mais moom joxe na fi ay masque ay eau de javel distribué ko ci askan wi c'est négligeable mhm. c'est négligeable de la commune bu ko porté woon pour jàpp ci jàppale commune bi pour taxaw ci liñ ci war a taxawee dañuy dépassé fii. kon Moussa jàppalewul commune bi loolu nga bëgg a wax. man ci li ma gis. ci li ma gis ak ci ni mu doxalee. mënoon na gën fi. li mu def je trouve que c'est insuffisant dès que ni budget commune bi permettroon na ko ci loolu la waroon jël d'abord million millions deux cent millions il mu génnee ko teg ko ci mais lui-même la déglu à travers une rajo muy wax di wax ni donc c'est à lui d'apprécier de voir bu président joxe bu ñu joxee ba pare mu seet ñi amul mu dindi mu jox leen il s'agit pas il s'agit pas d'attendre que que que il s'agit pas de gérer le volet le volet le volet alimentaire a -hmm. à savoir que ni jox nit ñi ay ceeb ak yooyu non il s'agit pas seulement de ça mhm. mais il faut aller beaucoup plus loin il s'agit d'équiper en masque tous les postes de santé régulièrement te en grande quantité mm -hmm. et aussi aussi point yi nga xam ne gis naa yenn points yi def nañ fa quelques lavoirs ak je ne sais pas je ne sais pas comment si marché yooyu yooyu mais parfois nga dem fa xool tu trouves même pas du savon liquide mm -hmm. encore moins de, du détergent ou encore de l'eau doo mhm. fekk sax ndox or waroon na mën a am un suivi mhm. ñu dem ñu jël des jeunes mënoon na jël des jeunes dans la commune ñu nekk ñu sillonné toutes ces vingt vingt unités là unité bu nekk mu am fa un comité boo xamante ni mhm. c'est des jeunes qui sont là face au Covid mm -hmm. qui surveillent les gens de ont des masques qui distribuent mais aussi qui qui ont apporté du savon liquide wala des gels qui qui qui sensibilisent qui parlent aux populations loolu mën nañ ko chaque unité mën nañu au moins mu am la mairie détaché fa des jeunes des jeunes mhm. pour ça mhm. parce que le jeu en vaut la chandelle parce que quand ça pète ça mhm. va chauffer pour tout le monde te parcelle du épargné wu parce que sa position sa posture moo tax. parce que ni muy demee nii boo gisee boo gisee. tu l'as dit et tout le monde le ñun chaque fois que ñuy seet ñu ñu ñuy suivre les cas ñu ngi naan ah yàlla bu ñu am tey wala alhamdulilah kenn limul parcelle tey. donc ça veut dire que ça est là. ok tey jii si extraordinairement si on avait les moyens de dépister au niveau la commune dinañ gis loo xam ne dina tiital ñëpp. Mhm. kon donc jot na mu def yokk jéego ci ni nga xam ne nag euh, mu ngi koy euh, defee coronavirus bi est-ce que yéen itam waroon ngeen xaar tey maire bi woo leen ne leen ngeen ñëw jàpp si mais te ngeen war a dem ci moom xool lan ngeen indi comme ay stratégie ngir xool ndax ngeen di daanee coronavirus bi ci commune bi ndax may na leen loolu wala yéen itam dem ngeen ci moom. bon personnellement man sax j'ai jamais cherché à associer m'associer à li muy def. Ah, lu tax je pense que ni c'est à lui de gérer la situation. Mm. c'est à lui d'être le premier d'abord à solliciter nit ñi pour ñu ñëw discuter ak moom walla pour mu laaj ku nekk taatam xalaatam ci mbir mi. Mm-hmm. mais aussi dama jàpp ni bu mbir mi demee ni moom warul xaar ñu ko ci wax parce Euh, mbir mi dafay ànd ak tuuti humilité. Mhm. parce c'est pas parce que yow yaa nekk maire yaa gën a muus nit ñi yaa gën a jàng nit ñi wala yaa gën a xam. Mhm. yàlla teg na la ci poste boobu nangul nañ la ko mais aussi da ngay xam ni xel rek du doy sa bos rek du doy te nga def euh, nga wàccee sa bopp tuuti. Mhm. jéem waxtaan ak nit ñi. parce que ku nekk sa xam-xam rek am na lenn lu mu la ci mën a te du une gestion de shérif. en criant par par-là. noonu ngay régler le problème la mhm. am na beneen pas dans l'affolement aussi. Mhm. il faut alerter mais pas s'affoler. Mhm. mais moi je vois que on a un maire qui est total qui est dans l'affolement. te nit bu affolé du mun a jëlati sax décision bu baax. Parcelles Assainies du maire bi rek am na ministre bi nga xam ne mi ngi fa. mooy ki nga xam ne moom moo di Amadou Ba ak ñeneen ay député ñu ngi fa ndax ñoom sentir ngeen tey contribution bi nga xam ne tey indi nañ ko ngir jàppale askan wi ci coronavirus bi. bon xam nga bu bu yam boo tuddee sax ñi nommé. bari nañ mhm. jàpp nañu ne képp ku nga xam ne waroon nga taxaw taxaw bi nga war a def. Mhm. taxaw nga ko ndax li nga ko war def. Mhm. ministre bi bi mbir mi dooree gis nañu mu yore matériel yoo xamante ne. Ah, gis nañ ko ci unité 7 nee nañu euh, euh, ki euh, World Vision. nga xamante ni dafa nekk à travers le monde di xeex. la pauvreté ak mhm. nekk ci yenn di jàppale mhm. jox nañ ko du matériel mhm. ak la fondation 221 matériel médical ak autre moo xamante ni réceptionné na ko denc ko ci maison des maison des frères boobu nekk foofu parce que man jàpp naa ni c'est pas la maison des parcellois bi ñu wax parce que seen kër la ñoom ñoo moo fa jënd kër teg ko foofu jox ko ay frères am ñu koy administrer ay li yéwén à travers la presse ñëpp gis nañu ce qui s'est passé gis nañu ne ses frères ñoo ci yore di ko doxalee nu mu leen neexee. Mm-hmm. di jël ko ronf ak rocc di dugal nu mu leen neexee di jox ku leen neex ak ku ñu bëgg. Mm-hmm. loolu yëpp gis nañ ko foofu. Mm-hmm. donc ñu jàpp ni inclusion ñàkk na foofu. te bi mbir bi amee aussi ñëpp gis nañ ko bi mu bi mu réceptionné loolu. Mhm. ay frère am la ko dénk. jël ngeen téye. Mhm. or mënoon na woo le maire mu associé ko ci mu jox ko matériel bi. Mhm. à aussi mu jël li nga xamante ne Parcelles Assainies soxlawu ko. mu jox ko le ministre de la santé parce que ay liy jot na fa du matériel médical boo xamante ni aussi. takku na takku na te et parcelle yorul sax structure de santé yu mën a utiliser loolu. xëy na ni peut-être am na ñu mu ci jox na ko yeneen district de santé yi. le député Badou Diouf ma koy nuyu au passage dégg naa ko moom itamit. mu appuyer les jeunes à travers du savon liquide ak euh, euh, de l'eau de javel. ak mhm. tout ce qui. aller avec. Mhm. def nañ waaye joué nga sa partition. waaye des na ay liy yëngal leen ko xeebal. Mhm. parce que Euh, li ñu jël ñu jël ko ci seen alal wala ci seen doole. Mhm. ñu def ko si loolu dañ koy rafetlu. loolu moom duñ ci duñ ci duñ ci mhm. kenn. Mhm. mais li ñëpp bokk muy alalu commune bi. muy le budget de la commune te ñu dénk ko maire bi. loolu foo loolu la war dindi mu génne ko. encore une fois il n'est pas trop tard c'est plus que jamais le moment. mu dégager un budget conséquent. on approvisionne la commune en savon liquide mhm. en gel et et puis en masque mhm. mu jël les postes de santé yi nekk foofu mu renforcer leen ñàkk nañ jumtuwaay de mhm. mu taxaw si mu xar si tànk tubayam ay léewen dañ koy tàccu rek bu ko defee mais bu toogee di xalaat ni diw mu ngi fee di ma xarab wala diw mu ngi fee di ma du ma ma def loolu boppam lay lor boppam askan bi lay lor. Mhm. parce que mbir day toll foo xam ne da def preuve de dépassement. Mhm. te man j'ai l'impression que nous ñun a un maire qui ne sait pas faire preuve de dépassement. Ah bon? ne mhm. pas inclusif. te d'après ce que nous voyons ce qu'il parce que nous l'observons. nous l'observons nous parce que ça nous intéresse c'est notre commune. nit fi nga dëkk da xool sa bawu tànk. bu liggéeyee bu defee ni mu war a def dinañ ne kii kat def na lu mu war a def buñ ko mënul ñu màndu si. Mhm. mais ni mu taxawee ci mbas mi jàpp nañ ne des na lool yolome na lool yaafuse na lool. Mhm. war na fee gën a mën a dëgër. dinañ ci ñëwaat euh, wax ci li nga xam ne nag moom moo jëm. ci niki rek gis nañ njiitu réew mi euh, journée nationale ci li nga xam ni moo jëm ci wàllum garab jëmbat dem jam ñaar yoo jëmbat garab te gisoon nañu fii euh, fan yi ñu génn rek wala weer yu ñu génn ministre ba nga xam ne da doon dem di jëmbat garab teg lal basang di def li ni mel tey njiitu réew mi toog sukk euh, defar euh, jëmbat garab tey euh, ba itam mu ne léegi képp koo xam ne dafay tabaxati kër di nga am benn permis bi nga xam ne di nga dalay wóor ne ni di nga jëmbat garab ci kër gi nga xam ne da nga ko nga gisee tey réforme boobu noonu tey. dama koy rafetlu dama koy rafetlu lool lool lool parce que le monde a un problème d'environnement. te l' atmosphère tey jii dafa souffrir ci la pollution atmosphérique et tout ce qui va avec. Mmh. l'érosion de l' écosystème loolu dañ ko fekk fii mu ngi fii. Mm-hmm. te lu lenn rek moo ko mën a contre muy planter des arbres. nous depuis le primaire on a appris que ni la photosynthèse mooy dég euh, mooy dégager de l'oxygène pour que les gens puissent vivre mm. correctement mm-hmm. ñu am de l'oxygène donc fii au niveau du Sénégal de Dakar plus exactement avec l'érosion maritime mmh. les côtes tout ça dañu war a am effectivement des arbres mu mhm. freiner d'abord l'avancée maritime mhm. mais aussi nit ñi ñu am un cadre de vie sain te loolu dafa yàgg bokk ci la priorité du président de la République mmh. le cadre de vie des individus def ci mës a mhm. boo ko xoolee à travers sa démarche te tey jii à travers le cinq trois point cinq am bi tu verras ni le cadre de vie am na ci importance. te boo ko xoolee l' opération zéro déchet bi mu lancé initié bien avant le corona. Mhm. war na ni wane ni tey jii royukaay la tey jii c' est des mesures. qui viennent amul cadre de vie moom. mënul am cadre de vie parce que cadre de vie vision la laaj te il faut avoir une vision mais quand on a une équipe municipale qui n'a pas de vision qui n'a pas d' objectif je vais li nga xam ne sama frère benn bi da koy faral di wax. Mhm. muy Gofay que je salue au passage. Mhm. day faral di wax la vision du maire ne dépasse pas l'esplanade de la mairie mais en réalité boo ko xoolee loolu la. Mhm. donc mais, mais, mais, cadre de vie parcelle. Mhm. mooy ñu am assez d'espace. permettant aux jeunes de s'épanouir gis naa nag à l'unité fi mu dëkk gis naa mu defar fa benn genre jardin public noonu ah bien tant je dis tant léegi pour le président de la République l'humilité il faut qu'on en revienne est-ce que ratifié euh, Aylewen c' est une rectification une grande rectification. Mhm. parce que tamit euh, nguur dafa ànd ak humilité yàlla mooy joxe nguur ku ko neex la koy jox. Mhm. mais san ne veut pas dire que yow yaa gën nit yi. san mhm. ne veut pas dire que tey jii boo nekkee ci nguur fa war a am noo taxawee da nga war a taxaw di toiser les gens wala foog ni ñeneen ñi nekkul ci li nga nekk. yaa leen gën. président wone humilité bu mat sëkk sëkk sëkk sëkk ñu koy saluer di ko rafetlu. parce que grandeur u kilifa grandeur u grand homme yi mhm. mooy humilité ngay wan nit ñi nañu delloo seen xel ci seen bopp xam ni lii yëpp moom si boppam waxoon na ko mhm. ce n'est que des leurres mhm. donc loolu la wane tey dama nekk émission ci télé Walfadjri ñu posé ma la même question ma ne le ministre bi nga xam ne dañ ko wane mu taxaw si si jaada bi il a manqué d'humilité parce que tamit nit ñi rek la mën doon. Mhm. au delà de Sidiada bi il y avait le colonel des eaux et mhm. bu sukkoon agenouillé à même le sol. Mhm. di di planter l'arbre yow nga taxaw ci kaw suuf si. te ñun ay jullit lañu ñun ci suuf la ñuy dellu. donc tey jii boo taxawee ne tu rechignes à ci suuf si si cadre sa liggéey. loolu dafay doy waar. te njiitu réew mi sax tey sukk sukk jël garab sa samp ko kii ko nu mu tudd. jëmbat ko jëmbat ko. Mhm. loolu diine sax daf ko rafetlu. Mhm. loolu dafa rafet dama lay jox benn anecdote gis nga gine boo gisee mu bëri ñu jàng alxuraan xam nga lu tax. Mhm. en son temps Makk dafa bëri woon naaj. le président Sékou bi mu demee Makk. mu xool xool mu ne buur bi lenn rek laa lay ñaan dama lay yónnee ay gine yu ñëw jëmbat fi ay garab. bu ñu ñëwee jëmbat. yow fexal rek nga jox leen lu ñu dundee ak loolu mu ne ko ay li yowoon nañ ñëw mhm. garab boo gis Guinée boo gis màkk Guinée moo ko fa planté ñu yabal fa ay Guinée ñu dem di palante fa ay garab mhm. ba nekk fa di jàngal Quran mhm. moo tax boo ko seetloo Guinée yi dañu am ay érudit ci ci ci Coran bi parce que fa lañ ko jàngee diir donc que ni tuyaaba bi mu àndal ak aussi li muy defar ci wàllu koom-koom. Mhm. li érosion maritime bi li muy téye suuf si. Mhm. ak aussi garab c'est la léegi gis nañ koom bi dafa nërmeelu léegi ak corona bi gouvernement bi nee na ci wàllu mbay la war a mën a jaar pour yëkkati koom-koom bi alors tey est-ce que euh, li nga xam ni moom moo di jumtuwaay yëpp teg nañ ko ngir mën a am lu ñoŋ ci wàllu wi ni mel. waaw le président déjà waxoon na ni croissance bi dina chuter. Mhm. dina chuter ay li yéwén. ñu ñaan yàlla loolu lu ñuy xaar la. lu ñuy xaar la. Mhm. mais aussi ay li yéwén di ñaan yàlla ñu bañ a am récession. Mhm. parce que récession moo gën a bon. parce que booba du ñu mën a fay suñuy bor. te dina métti trop ci nguur gi. ay li yéwén président ci xarañam ak ci xam-xamam li mu gis effectivement il faut que ñu def un retour vers l'agriculture. te à travers ça les gens ont compris. te je vois que ni tey jii. boo xoolee même ses opposants bu ñu bëggee pousse la jeunesse vers l' agriculture. Ah, c'est parce que ils ont compris. Mm-hmm. je ne l'ai pas cité yaa ko cité. Mm-hmm. mais je sais que a plagié li nga xam ne président moom la wax. parce que aussi euh, s'opposer c'est vrai. Mm-hmm. c'est bon mais il faut pas que ñu xam ni l'opposition c'est prendre l'antithèse rek de ce que l'autre fait. président li mu xalaat loolu mooy dëgg bi. tey jii il faut que les gens retournent vers l' agriculture. Mhm. parce que l' autosuffisance alimentaire d' moo ñu mën a sauver. Mhm. te au ngeen ci de. Mhm. au si parce que bi mu ne dinañu produire une tonne euh, un million. de tonnes de riz def nañ ko ak céréales yi donc tey jii bu ñu delluwaatee foofu. nit ñi nag léegi la ñu gën a am xam nga bas bi aussi am na benn particularité. nit ñi dañoo gën a attentif ci li nga xam ne njiitu réew mi mu ngi koy wax. te di gën xool li muy def. mooy te mooy que ni les gens xam nañu léegi consciemment boo ko waxee yenn jeunes yi. Mhm. xam nañu ne l' moo fi sës te c' est lu lu lu am solo la. Mhm. boo xoolee le directeur du Prodac que je félicite mhm. muy Pape Malick Ndour. maa ngi gis ni Prodac yi quand même mi ngi avancé. mi ngi avancé à travers CFA à travers. Euh, bi nekk fii ak. Sangalkam Sangalkam. yooyu ñu ngi ñu ngi def des résultats probants. ay de. mais ñu ngi ci. Mhm. ñu ngi ci parce que boo gisee avec le matériel qui est sur place ak ses ses partenaires les Israéliens qui sont sur place. Mhm. loolu ça veut dire qu'il y a la volonté qui est là et y la détermination. Mhm. pour réussir ça parce que c'est la solution de l'heure. loolu donc loolu dañ koy rafetlu. parce que président aussi. Euh, il a compris il a vite compris. mais booy wax nit itam demal da ngay joxe ay jumtuwaay est-ce que lépp noppi na kii mu joxe ko askan wi mën a dem bàyyi ji. Euh, semence yi joxe nañ leen déjà donc euh, fii président yooyu yëpp jël na ay jumtukaayam ci xam na ni tey ji li ko war mooy que ni nit ñi il faut les armer loolu amuñu ci problème bi ci loolu gisaguñu fenn fu ñu taxaw ne donc il n'y pas moyen ou ceci la lu tax demuñu mais loo xam ne nag ñu ngi koy agité fan yii yëpp ci wàllum politique gouvernement ñoo bi ñuy wax euh, ñu si bari nag ñu ngi koy tudd alors yow tey lan moo si sa gis-gis en tant qu'acteur politique ci wàllu yu ni mel. que parcelle am ay ministre parcelle am ay ministre parcelle rek xalaatoo Sénégal ñu mhm. defar ko itam yow it. balaa may mais ministre bu ku ñu fal ministre pour nga defar la. te mhm. ministre. da ngay suivre les directives du président de la république ay li mhm. yoon macha allah. il a assez d' expérience te ku suivre ay directives am war nga mën a liggéey. tey jii ñu ngi koy agité c' est vrai ñu ngi koy wax mais ce qui est fondamental tey man li ma gëm. moo di que ni le président a besoin d'une équipe de combat le Sénégal ci boppam moo soxla une équipe de combat parce qu'il va falloir redémarrer la machine te redémarrer l'économie du pays ñi fi nekk franchement euh, dafa bëri des ministres qui sont dans l'inaction ba ñuy wax dëgg rek hmm. man damay wax dëgg rek moi je ne fais pas dans la langue de bois hmm. am na ministres yoo xam ne duñu leen sentir duñu leen sentir dans ce que mission yi ñu leen jox parce que gis nga dans une équipe gouvernementale moi je pense que ni ku nekk am nga un rôle boo xam ne bu la ko président confier mm-hmm. parce que confiance la d' abord bu jëlee confiance mu placé ko en un ministre mm-hmm. en un individu war nga am obligation de résultat obligation de résultat ça veut que ni tu appliques à la lettre les directives du président parce que man dama jàpp ni mm-hmm. ku ci appliquer directive bu président waroo mën a laaj président am na expérience il a au dans une équipe gouvernementale. Mhm. bien avant que mu nekk président de la République. ñan ñoo lajj de nekk aussi nekk mhm. premier ministre. Mhm. donc tey le commun des sénégalais jàpp nañu ne quand même am na ministre yoo xamante ay yaafus lañu. ñan ñu te le pays a besoin de ça. vous savez du question boo fi tout détour je vais évaluer des gens alors que ni c'est pas mon rôle de les évaluer. mais ñu xam mais ñun ñëpp ay citoyens lañu. que nous soyons. de la mouvance présidentielle parce que nous soutenons les actions du président de la République. Mmh. mais jàpp nañu ne réew mi ñëpp xam nañu ne président rek moo fi taxaw dëggantaan wane ni c'est lui te il travaille. le président Macky Sall le président Macky Sall le am na ministre yu ñàkk. Mhm. am na ministre yoo xamante ni ñëpp xam nañu ne tey ji loo contre contre ñu ngi liggéey. Mhm. ñu ngi liggéey dans leur département ils font des de brillants résultats. Mhm. mais am na tey ji Sénégal yi xamuñu leen sax ça veut dire que ni ñoom quand ils travaillent c'est visible xam nga ñoom c'est pas comme le fonctionnaire lamda bu nekk dans son coin mhm. nga xam ne c'est son supérieur hiérarchique moo koy noté mhm. mais ñoom dans leur département dans ce que la mission qui leur est confiée mhm. nit ñi ñooy gis di évaluer mais malheureusement duñ leen sentir kon lu bari des na daal ci gouvernement bi donc li ñuy souhaité kon bii war a ñëw nag bii war a ñëw ce doit être équipe de combat Euh, léegi ubbeeku beeg ça va changer ubbeeku beeg opposition bi da ngay xaar la. ubbeeku bi euh, moi je pense que il faut s'ouvrir positivement ouvrir positivement mooy Sénégal am na ay compétence ils ne sont pas dans la politique ils sont dans la société civile ñooñu ak ñeneen ñoo xamante ni vraiment war nañu mën a apporter quelque chose au pays mhm. bu leen président convier nañu ñëw liggéey ak moom dañu war a mën a dem liggéey ak ñoom. parce que man bu ma déggee ay di d'union sama xel def si xaw teey parce que c' pas. da nga si am xel ñaar da nga am xel ñaar c' est pas le, le gouvernement je pense que du histoire de partage. wala de satisfaire di di di di une clientèle politique wala du clientélisme. Euh, l' Afrique n'a plus besoin de ça. li ñu soxla des gens compétents ñu ñëw jox leen tâche quand ils ne sont pas à la l'œuvre ñu dàq leen. mais malheureusement sax le président est tellement généreux que rarement il se sépare de ses ministres on ne sent pas de, de, de changement dans l'équipe gouvernementale il faut que muy am parce que ils ont des obligations de résultat il faut qu'ils fassent des résultats le pays foofu la toll te on a un, président qui, qui est développementaliste mhm. parce que le président émergence réew mi mu bëgg lu mu gëm la te lu mu nekk di doxal la mhm. mais il faut que ça suive mu suivre mais malheureusement malheureusement c'est dommage mais. am na ci ñoo xam ne commencé nañ yëkkati seen kàddu ñoom nee na ñoom ànduñ ci li ñu mel benn frange réew mi réew mi ñoom a amaguñ seen voix officielle dañ koy ajouter rek. xam nga mooy li ma wax. Mhm. le yi n'a pas besoin. le sénégalais lamda soxlawul nga dem jëli ji une grande gueule excusez-moi wala kenn koo xam ne c'est parce qu'il s'oppose mhm. qu'il faut l'amener parce que euh, mbir mi il faut que ñu dépasser cadre ay. li tong-tong la wala lii il faut amener des gens pour les faire taire ceux qui parlent n'ont qu'à parler mais ceux qui travaillent n'ont qu'à travailler ceux qui veulent travailler nañ ñëw liggéey. gouvernement tam day soxla opposition. bien sûr mm -hmm. mais qu'est-ce que c'est qu'une opposition une opposition c'est des gens qui sont là mais bu ñu gisee quelque chose bu nga xam ne le pouvoir en place defu ko. Mm-hmm. ñu gis d'autres pistes. alerter d'autres pistes non mm-hmm. alerter mais de façon constructive xam nga ñoom lu ñu kaas kaas kaas kaas du ñu taxaw mukk ne les failles du PSE lii ak lii wala le président lancé na la journée de la de l'arbre mhm. or l'environnement wala le pays à besoin de ceci ceci ça xam nga genre contre-proposition boobu la ñu mais pays bi foofu la toll mhm. tey boo ko xoolee ceux qui ne sont pas dans la politique qui sont des cadres mhm. ñu jàng ils sont là foison ñu ngi dans le secteur privé ñu ngi dans l' administration et ils n'attendent mhm. que ñu woo pour que ñu mettre la main à la pâte parce que le pays mhm. du la politique politicienne moo koy développé te ñun quand nous disons ce pays là du politique politicienne moo koy développé mhm. c' est parce que nous savons que ni président teg dans les voies de l' émergence dans les voies du développement il ne reste que mu am des gens qui sont qui sont là qui ont à cœur le développement du dama force ci weewu tànk ñu ne bokkal jong dafa am ambition ngir jiite Parcelles Assainies nekkate sa critique bu bari bi mhm. ak euh, yi ni mel nekkate yow it place Moussa Sy nga bëgg a jël xam nga man dama am une particularité ce que les gens oublient man awma obsession ni fixation sur la mairie mais euh, awma obsession mais bëgg nga ko quand même ma wax mhm. mhm. si elle me tombe dessus dama koy jël parce que bëgg naa commune bi parce que aussi bëgg naa luy defar commune bi loolu. kenn du ma ko fan ngay jaar mënuma sam papa am kër biir Parcelles Assainies dëkk Parcelles Assainies. Mhm. may yeewoo parcelle. bàyyi ay opportunité ñëw tànk ci commune bi commune bi duñ ko defar wala du ma ko gis man en son temps il fut un temps euh, dama daan bind mos bind lettre la mairie di di di souligner des faits ay lampe yu tàkkul ou quelque chose comme ça j'ai jamais eu de réaction boobu je n'étais même pas politique mais je vivais j'étais la commune. di dund ak ñoom. donc euh, c'est pas un crime te tey jii ce que je dis aux gens. il faut que les gens se décomplexent. la mairie des parcelles appartient à tout parcellois résident donc faut pas que ñu def ay fixation diw bëgg na mairie bi wala diw bëgg na mairie bi dañ ko yàllool. dangay ngay sam sa nen. dañ ko yàllool bon tollooguñu foofu man tollooguma foofu. Mais je sais une chose est certaine, j'ai pas de fixation sur ça. C'est pas le siège du maire qui m'intéresse. Mhm. Ce qui m'intéresse, que nous avons une équipe compétente et dynamique, prête à développer cette commune la parce que qu'elle a tous les atouts pour être Tout. am nga ci idée projet yi ngeen bëgg yéen ñi nga xam ne équipe bu nga xam ne bëgg ngeen jël mairie bi ci yan fànn ngeen nar a aw pour génne pa que parcelle lu ci bari nag parcelle metti na de. waaw parcelle metti na mais aussi neex na defar. tey jii c' est une population boo xamante ni ñu ngi foofu tey jii parcelle. maanaam problème assainissement yeeg yeneen ak yeneen bari na de luñ fa war a defar. wàllu assainissement bi liñ ci war a def ñëpp xam nañ ko mooy opération pré hivernale yi nga xam ne maire bi da ko doon faral di def ren sax gisuñu ko ci. te ah, parcelle bu ndox tuuroo rek. mu am problème. gis nañ loolu moom moom moom moo xam lu tax defu loolu. interpellé ngeen ko ci xëy na xëy na topp na affaire mhm. politique ou affaire mu bas mi ba fàtte na loolu. or loolu tamit ci la bokk mais jàpp naa ni assenissement aussi l'État war na ci dugal loxoom ci assainissement wu Parcelles Assainies parce que la densité de la population assenissement classique bi ñu amoon tey ji àttanatu ko la population a doublé ou bien euh, presque doublé wu na du vers les années quatre-vingt ou soixante-dix-neuf où il y avait des maisons éparses par par la mmh tey ji c'est une population de presque trois cent mille habitants yu nekk Parcelles Assainies donc densité réseau bi attanatu ko attanatu ko donc ce qui fait que bu suy asamaan si ubbee ses vannes rek. Mhm. dëkk euh, parcelle inondée. je pense à l'unité 13 je pense à l'unité 26. Mmh. je pense aux HLM Grand Médine nga xamante ne c'est un cas qui me touche à cœur parce que ñun dafa nekk cité boo xamante ne ay mag ko moom. Mhm. ay maquettes ñoo fa nekk. te bu tawee ils sont obligés ñu xëcc seen pantalon di di di di indi ndox te lu indi problème boobu mooy l'assainissement des HLM Grand bi fa nekkoon. Mhm. le ministre bi nga xamante ni c'était un ministre de l'environnement te ñu mu dëkkoon parcel mm-hmm. en l'occurrence monsieur Lamine Ba mm-hmm. moo jël assainissement wu HLM mu raccordé ko ak bu 26 donc te 26 nga xam ne pente la ndox bi jógee Damel et tout ça foofu lay wàcc mm-hmm. mu ñëw nag léegi indi problème bi man lu ma tëdd tëdd bu dee minuit une heure je pas dans la maison familiale mais minuit une heure bu tawee ma bàyyi lépp lu may def daw dem suñu kër wax sama pantalon commencé di ŋàcc ni ñëpp ou bien ma wuti moto pompe wala wuti pompe pour pomper. kon lu moo gën a jàmp lekk na lu gën a jàmp. loolu loolu moo njëkk gën a jàmp parcelle. loolu moo gën a jàmp parcelle te là nous interpellons l'autorité centrale. Mmh. parce que assainissement commune bi loolu nag je ne pense pas que ce soit dans les domaines de compétence du maire. Oui. non moom li mu war a def mooy opération pré hivernale yi. te def mu jël des jeunes en quantité suffisante. Mmh. ñu nettoyer les regards là et autres. Mmh. su waree day nekk journée boo xam ne investissement lay nekk mmh. humain boo xam ne tous les acteurs de la commune lay convier à ça. Mmh. nous nous serons prêts mettre nos bottes. pour jàpp si mais. mais est-ce que interpellé ngeen ko ci wala jaru ko. Euh, il connaît ses devoirs il est censé les ñu ko war gën a xam loolu warul xaar ñu ko li nga xamante ni yow yaa ko moom yaa ci nekk waroo xaar ñu la ci interpellé da ko war a def. parce que looloo tax ñu teg leen ñoom nag aussi parfois loolu dañ koy fàtte mais il suffit tout simplement que un Bokar Ndiongue taxaw ne woy le maire ne fait pas de l'assainissement ñu ne woy mi ngi sànni xeer dafa bëgg a place maire bi dafa bëgg a patati patata. Hmm. or que ni dépassé nañu cadre boobu. donc euh, mbir yi daal ay jéego des na ci Parcelles Assainies. Hmm, des na des na parce que bu ñu sañoon parcelle day mel ni Lyon Villeurbanne commune yi nekk Villeurbanne à Lyon en France. Hmm. day nekk une commune émergente une commune boo xamante ne il bon vivre. parce que neex na defar boo gisee ni le président de la république tey jii avec le projet Promoville. Mhm. mu pavé. Mhm. commune yenn mu pavé yenn yenn unité yi. Mhm. loolu dañ koy rafetlu parce que tolloon na fi temps vers les années quatre vingt seize quatre vingt dix. boo jëlee taxi ne ko parcelle laa jëm mu ne la foofu dafa am suuf mbaa fi nga may yóbbul amul suuf. léegi de moins en moins. on a ce problème là ce n'est plus la cas te donc tey loolu bu dañ koy rafetlu. bu jàpp ni le président mi ngi liggéey. Mhm. am na une autorisation particulière ci parcelle mais dañuy koy lancer encore un appel rek. Mhm. mu gën a gën taxaw ci loolu. Mhm. respecter ay engagements yi nga xam ne moom la jël pour les Parcelles Assainies à savoir déjà stade boobu ñu terminer ko. Ah, à savoir aussi problème la de à savoir aussi. ñu am un hôpital. parce que trois cent mille habitants fu ñu nekk. il faut quand même ñu am un hôpital. un hôpital sérieux pour population bi. stade bi lu un temps il fut un temps. même pour rajo sax imagerie rajo mënuñu ko am foofu ci ma Abdou te on ne sait pas qu'est-ce qui passe bon lii ko bloqué peut-être le ministre. du sport xam na ko. Mhm. mais c'est domage que ni à chaque fois quand même eu des promesses yu fa génn je rappelle que ni ay 2016 2017 Amadou Ba ministre des affaires et euh, ministre de l'économie et des finances ci kër Modou Lo la toog mu ne budget baa nii sama poche un milliard yore. on va faire le stade bu yàgg malheureusement léegi ça fait bientôt trois ans que ñu ngi mhm. loolu tamit il faut ñu rappeler ko. mënuñu xaar. Euh, jeunes yi ils pas le droit ñuy xaar. Mhm. parce que waxuma dara au-delà même du stade. il mhm. faut comprendre que aussi il a des recettes financières que la commune perd. fu mu nekk fii nii que la commune est en de perdre parce que stade bi tey jii bu pare woon. jeunes yi dootuñu ay lieu dootuñu jéggaani di dem ci yeneen stade di jouer ji mhm. te recette yooyu dina mën a entrer mhm. dans la caisse municipale grincement de dents am na mhm. ci nomination Moussa Sy port ndax dangeen jàpp ni euh, dañ koy armé ci élection locale yi ñuy ñëw bon bu fekkente ni tam dañ koy armé pour élection locale yi ku calculer loolu tamit alchimie boo xamante ne tegul fen tegul fen parce eh, ñooy fal te ay li yowén jàpp naa ni amul bilan bu mën a tax tey ji ñu joxaat ko ñu joxaat ko amagul bilan amul bilan amagul bilan xam nga nag lu muy nekk di créer mais amagul bilan dina fa taxaw nag naan jeunes yi subventionné la sport bi tant de millions de 2009 à temps wala de 2014 à temps fàtte ni xaalis boobu xaalisu commune bi la parce que man parfois bu ma koy déglu damay ree sax mhm. parce que bu taxawee naan way joxe naa li joxe naa li te xam ne yow moomoo mhm. sa salaire du sa poste mhm. xaalisu commune c'est c'est c'est basique loolu il faut dépasser ça mais bu taxawee ne joxoñ ne lii piscine municipale bii maa ko waroon defar defar naa ko mhm. or piscine baa ngi fi depuis deux trois ans defaru ko mhm. loolu tamit dañ koy ñaawlu mhm. jox nañ ko poste PCA loolu moom rek la engagé ñun ébranlé wuñu sax ça ne distrait même pas parce que bu dee mérite am na ñu ko ko gën a méritoo fii ci Parcelles Assainies di jàppale le président de la République di xeex te abagoo leen ñun ñu ngi fi ñu ngi di jàppale le président de la République comme d' autres responsables. Mhm. nga xam ne mérité nañ ko. léegi nag ay li jëwén li ci des ñoom la rek lu ci mënti am mooy di que ni lii nga xam ne gox bi la intéressé la mhm. les parcelles la intéressé mhm. loolu ñun dinañ ci taxaw suñu taxawaay bi ci war parce que suñu commune duñu seetaan muy nekk ci loxo yoo xamante ni mënuñu ko jëmloo kanam mënuñu ko jëmloo ginnaaw hmm. avancé wul arrière wul parcelle avancé wul arrière wul <laughs> ay bu du woon le président Macky Sall hmm. tey jii fa la ñuy nekk di hmm. am ay problèmes yu dul jeex école yaa ngi noonu palanteer yaa ngi daanu te budget bi fi nekk kenn xamul nu mu toll te mënuñu fexe sax ba tabax si école yu baax il a fallu que AGETIP ñëw dugg ci mbir mi ci xeex bi pour que ñu mën a am lu jàkk projet ay projet ay sept merveilles xaw ma ñaata mille merveilles lay wax dans ses rêves dans ba léegi maire bi mënul fexe ba liggéey liggéey bu correct li ci des nag mhm. ñun liñu dañuy lancer un appel aux Parcellois mhm. l'heure du véritable changement jot na parce mhm. que Parcelles dafa amul équipe municipale bu mu mérité c'est ça la vérité il faut que ñu am une équipe municipale digne des Parcelles Assainies des gens qui ont à cœur le travail des Parcelles Assainies mais pas des gens qui sont là dans des combines politiques du trahir par par-là du renier par par-là loolu du développer commune bi. on n'a pas besoin de ça. <laughs> Bokar ñu ngi lay sant di la gërëm. kàddu gu mujj gi mhm. mhm. kàddu gu mujj gi di remercier ci sa invitation bi ça a un réel plaisir. Mhm. di échanger ci. problème bu réew mi ak mm-hmm. aussi di wax ci Parcelles Assainies mm-hmm. avec toute la passion que ça comporte parce que mm-hmm. dañoo gëm suñu gox te dañoo bëgg suñu gox donc di remercier tous les auditeurs di jéggalu aussi su fekkente ni la passion nous a poussé à faire des manquements parce que aussi nit nit rek la mën a doon te di rappeler que ni aussi di appeler à l'unité les Parcellois les acteurs politiques ñi nga xamante ni tey jii dañoo bëgg changement que ñu def preuve de d'humilité mhm. te ñu def preuve aussi de beaucoup beaucoup beaucoup de générosité dans la dispersion rien ne pour se régler il faut que ñu boole xool yi mhm. il faut que nous nous fassions confiance pour l'objectif commun mhm. à savoir dégager le maire actuel Moussa Sy ok mbokk yi sant leen gërëm leen ci seen ànd ak ñun ci rajo Rewmi FM fii la daal di émission bi daal di jeexee gërëm moo Bocar jong bi nga xam ni moom laa fi dalaloon tey sant ki nga xam ni nag moom moo di Léopold Mendy jox leen dig daje ba dimanche ci beneen invité.